tey jii bi leen ko waxee ne dee exemple ci sensé ci sensé dañ leen gis. Ah, xale bu góor bi ñaata at war naa toll ci ay sept ans ak seexam bi affaire bi amee seexam bi ko gisee directement nar a dem ci xale. Ah. pour sa te bu ñëwoon ñoom ñaar ñooy ànd te ab seexam la. léegi xoolal action bu mel noonu bu leen ko déclaré su fekkoon ne ñëw na rek tey lii lépp dafa nan ñu bàyyi négligé bi ñuy négligé bu leen waxee nan ñëw. xam ni doyul leen affaire ñàkk fay la état wala fi teg ñun ñu liggéeyal ñun ñoo leen di fay suñu xaalis pour ñu liggéeyal ñu kon bu kaa amee nan bu leen ko waxee nan ñu taxaw ñëw affaire bi jeex c'est simple nee fii dafa am poto yu bëri léegi boo leen doon tegtal kilifa yi wax leen fi mu nekk dëgg-dëgg ci Touba lan nga leen di wax dëgg-dëgg bu ñëwee ba Madiana 3 bu ñëwee ba bi bu ñëwee ba Madiana 3 bi aada saw moo ko jiite bu ñëwee ba ci Madiane 3 ci wetu marché bi bu ñëwee en face station totale bi bu poto yaa ngi fi benn du fi poto ay poto yoo xam yëpp ay am woo dina ko déclaré comme ni ma ko waxee sànq rek koy déclaré bu ci sensé tey dañ leen a woo tey bi nekkaat urgent moo am décès urgent ñu ñëwee ci sensé bu ñu ko defoon dagg fii nii bu ñu ko defoon tey lépp dox poto bi à te am na ba bay dagg fil bii am na beneen poto courant boo xam mi ngi fi ñu ngi leen maase nan ko daggaale dëggaale wu dañoo dañoo daal seen def directement